Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sama mbokki tukki kadi, mudu mudi ak fatu faatu kaddu gi Baye mbake Madina Lo Yobantu bis bi tay ji ma di len xamal nañu moytu wor bu fekkente ne nit wor na la yow bu ko wor Yalla dafa bañ wor ndax mom du ko def dina mbugalat dina tekk dina natou Yalla dana fay manam du fayanto me dana fay sa jëf dana fay jëf Yalla du jaawale jëf do def lu bax mukk mu fay la safar do defu safar mukk mu yok safar da nga def safar nak mu soppi ko yiw ndax bo tuubé nga ñaan mu may la nga sant mu dolli la sama mbokki tukkat bu len gis ne rew mi da len di wor ngeen di wor bu len fayanto ci wor yéen sama mbokki tukkikat yi wor lu cërub doomu aadama yéen sama mbokki tukkikat yi wor mooy sakk jëf wor mooy suul jëf wor mooy lu baax nga yàq ko wor mooy nit ki teral nga toroxal ko wor mooy nit ki defal la lu baax fekk la ci ay lëgg-lëgg indi la ci ay tepp-tepp nga weq ko war mooy nit ki fuñ ko tuddee nga wax ci moom lu bon te wóor na la moo la gën wóor na la lii nga wax du dëgg ci moom Yen sama tukki kat yi kuy fàttali démb rek warkat nga yeen sama tukki kat yi nit ki su fekkente ne lu ñaawam rek ngay génnee lu bonom rek ngay wax lu bonom rek te ñi ngi koy waxal leer na la ne leer na leen ne ñoom ñoom ñi lay dégg kii defar na la kii yëkkati na la kii teral na la da nga gis ko day jàpp dar ne ah moo ne man de diw su ma ko xamee diw a tax ah man de diw ba ma ko fekkee ci kër ga muy sëy lekk gu baax jàmm wërsëg kon kii moo tax di wax lii xamal ne kon warkat baa ngoogu am na ñoo xamante nii nag ñoo suufa yam loo mën a def ci lu baax dañ naan kew di la xool am na ñoo xamante nii nag ndeysaan mom fa tabarakallah ahsana xaaliqin yal yalla yàlla xeeb gis nga wor sa bo baxé bo deful attention ay kat kep nga yam so baxé soo deful attention ay kat gis nga nit ki bu boné ay bon katam rek du am ben ciona ndax ñi bax ñi bax dañ koy daw ñi bax dañ koy moytu wax li ah borom bax illallah mam ci Ibra Fall kooku de musta wor kooku de moom mën na maa ne bat bu wax seigne Touba bu bisub tay ji di la 24 octobre musti delu ginaaw Cheikh Ibrahima Fall am na ñu bari ño xamanteni ba leen serigne Bamba defare, dañoo wor dañoo daal dem fuuyu daal di beru ba nga dégg Cheikh Mamadou Fadal wax naan bàyyi leen beru bi yoonu mourid amul beru xadriya bu la neexee nga tibb dem toog fële duutoo déglu kenn di jëf sa jëf tijanisme bu la neexee nga dem jël sa ijaasa jël sa tarixa ñu may la tarixa la ijaasa la muqaddama la nga dem beru ji yoonu murit loolu amu fi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké 89 borom belal nee na man nga dale fële di bërëmu waaye boo yegg si sëñ Tuubaa rek fa ngay yem mënoo koo romb Cheikh Mamadou Fadal fii la toog ne bàyyi leen beru bi kon war amoon na kenn ku ne la nga yor du sa yëf yëfa ñëw leen fii Cheikh Ahmadou Bamba defar na ku sant Jaxate ku sant Jeng ku sant Lo ku sant Mbay ku sant Njaay ku sant Jóob ku sant Jenn ku sant ku sant ku sant ku sant bi sëñ Modou Moustapha taxawee Cheikh Ibrahima Fall lim ko sottil ci mbooloo ci ngasum raay bi kenn fekku ko ci 1927 après ñëpp a dem beru ji ñi ci ëpp du ñëpp waaye ñi ci ëpp du ñëpp waaye ñi ci ëpp ndax lan tubaab baa ngi fi yore ay këccëreem ak i dem, ak i karawaasam ak i fetalam ak i ñu bëri naan lañ doon xool ci sëñ Tuubaa di gisuñu ko sëñ Moussa ñu ne ah ñu ne sëñ bi da daan toog di tomb ka bind ka jàng ka jàngale ka xam ka yet waaye Modou Moustapha day ne nee na day taxawal ab raay yee ne lan mooy ab ñu ne ah, nee na njëriñ la koy jëlee ba Touba de ñu ne mujj yéen est ce que kii moom waxees na ko dara seetaan leen ko foofu ñu bëri dañ ko woon ginnaaw moom dong waaye nag la ko sëriñ Tuubaa waxoon ku ñëw na la ci fekk. ku dem na la ci ba liggey bu yalla nango ngogu te kenn munta te mu ne dajji dajjaral ne fàng fàngaaral ne wat wataral muy jumaay tuba ku ñew na la ci fek ku dem na nga ci na la ci ba na nga ci def li nga man ak lo mënut ba tax ñukoy woyé ñeñ wat karawam day set ci nak karaw gi sax ñu naan ko ñeñ naaj wu tang ba bo demee garu njërim da ngay gis mbar mako fa tubaay be taxawal ngir mujj yeureum ko ci taxawayu naaj bi ñu tabaxal ko fa ben mbar mom dañ ko ni señ bi del taxaw ni nanguwutit ñu tegal ko fa pilaar muy toog ba ni raay bi yeggee mu yéeg ca moom ak Cheikh Mamadou Fadal ak Cheikh Mamadou Bachir départ njaarim ba Touba mu ni leen garanteel naa leen ko tuubaa njaarim deraal ya maanaam saxaar gu këpp du fi am gis ngeen ko ba nëgë ni ba nëgë ni raay bi tubaab bi bi mu dikkee natt bi juumul jëm yoonu kayal juumul jëm yoonu daaru muxti wala mesere ci la def sëñ Fallou nag moom bi mu toogee dafa ngar dajju gaa ne leen hey ba ñu wuyu ko mun leen rafle mott jiba muut Fallou Galas Touba ak waaye nag bero bi moom bàyyi leen ko kenn ku ne la nga yor du sa yëf yëfa ma gis nga ña ca doon di diital Cheikh Mamadou Fadal dafa leen a rocc roppi wékki wékki Cheikh Ibrahima Fall maanaam dafa leen a wékki ñu ne ñoom du ñu ñëw mais dafa mujj kër yu bari dañoo fay tey jii bu ñu wootee mënuñu am fukki junni am na ci kër yoo xam dafa fay complètement man xam naa ci lu bari kër yoo xam boo fa rombee dañ naan kër gii seex la woon kër gee seex la woon kër gee ab seex ab seex ab seex ab seex ab seex waaye ñum ñëpp bu ca kilifa ga faatoo doom ja bu toogee bu doom ja faatoo saye am na ci kër yoo xam la fa des bareetul ba nëgë ni nag ku jël si wut ndigal ku jël si wut ndigal sak fay weesoogul ba nëga roq bi roqub sëñ Mamadou Fall ba mu ne bàyyi leen beru bi te sëñ Modou Xaban jibbulu ba mu naan sëñ du Xaban lii ma waxaale na ko ñëpp boobu da doon yeesluwaat rek kaset bi ku ko dégg xam Cheikh Mamadou Fall fa mu doon waxee mbokk yi niñ leen moytu wor mbokk yi nañ xool Cheikh Ibrahima Fall bàmmeelam sax wóorul bàmmeelam a gën a xóot bàmmeel bi addi addi ju ci génn mu ne yët leen ki fi nekkal maam borom tuuba cheikh ibrahima fall ba nëgë ni du delloo ndigal ëhlu bay fall ba nëgë ni kenn du leen woo di leen yedd ëhlu bay fall ba nëgë ni luñ ma sa jëf alhamdulilah rabbil alamin ngay dégg ahlu bay fall ba nëgë ni musu ñoo war xamuñu corona xamuñu choléra xamuñu ebola xamuñu noor xamuñu nawet ahlu bay fall ba nëgë ni seenum nangu kenn mënu leen a dab ahlu bay fall ba nëgë ni ku bañ a war da nga leen di xool duñu sakk jëf te yaakaaruñ ci sëñ bàmba dara yaakaaruñ ci sëñ bàmba dara loo wax ñu ne Seex Ibra rek Seex Rafaa rek doo dégg ko ñu ne laa ilaaha illallaah Mbàkke Seex Ibra képp lañ na dann lum leen joxañ ñu def yaakaaruñ ci sëñ bàmba dara àjjana seen yoon nekku ca sawara seen yoon nekku ca amuñu jotug di mbiccoo ka mbàlloo ko xiiroo ko ŋaayoo yow yaa am jot di leen xool ba xam lu ñuy def yor nañ satala wala yoruñu satala danañ do wala duñ wërd danañ jang wala duñ jang yow ya am seen jot mais ñum amuñu jot ñom dal lañu waxon ñanga ca yalla mi ko mom moko ne bam ba mo mom rasi ko jox ko say pexé mu wax ko la fa mom won ko tektal ya fa mom mu xamne gis na ko ko mom mu di jël mbiram joxé mu far soobu ba jitu len ma nga ca suma ci continuer damay yor te bëgguma ne dir ndax man c'est se c'est horrible.